mënul def loolu lu nit champion boo xam ne dëgg yàlla moo ko xam-xam la neexal la vraiment foo tax ree bëre daa war baaji baax donc naa ci jël muy foofu baax te naa xam ne nekk champion bu question tegale naa ay vingt et un champion xel la xol la yéen a ay xale ay ndaw شرب من الماء يقل يعني بريلين يا surtout la jeunesse donc ay jeunes lañ jeunes lañ kon tey jii entre amateur bi refus paase wulli ñu ñëpp ñoo bokk même force kon combat bi ban date la combat bi novembre décembre novembre lañ ko jëm ci am sept novembre mais ñoom dañ ko ko question bi ma bëgg a laaj rek bi corona bi la sax fooy parce que dañu dégg mu ne bu dañuy fay ba combat bi des une semaine euh, ñu fexe jàpp wuli fexe jàpp ko ngir toj tal la wala fexe jàpp ngir tey combat bi échec la war a dafa am lu muy sorti wuli ginnaaw bi sant yàlla si si ñaari waajur dañ lay gërëm di la assurance di gërëm aussi sa partenaire la mooy tey moo nekk di Chantal maa ngi ñoom ñu ngi liggéey ça fait un an et li ko def parce que bi sax si tey ñu tëgg benn tournoi lamb wala mais que contexte Covid bi ñëwee dañoo xay fay dañu décidé jël face à face bi kenn gis lamb tey bu ñu ñëwee bi photo damaa nañ ren si loolu dama di ko bëri mag mën nañ ci jàngat bu bëri. Mm. te je me dis que moom nag mooy kii bi ma. Mm. kon ñun war nañ def ba suñu bopp bu ñu nee santé boo nee regroupement dañuy def rek sax. pourquoi mm. pas ñun bëri war nañu ko yoral sax. dañ gëm suñu bopp xam suñu cosaan bu ñu jaay foofu ñu nekk suñu bopp. maa ngi wuti je crois que bëri combat bu neex bu ñëpp di wax. mosuñ dépassé te wuli fu mu toll nii fu ko neex day jaar. mais combat bi ñu ko sa question fu ma toll nii. boo gisee ma ne une semaine joxe. parce que dafa bëri wax. combat bëri bu une semaine desee ci loolu ci àll bi def ma li may def man physiquement maa ko noonu pare ñëpp gis nañu ba mu naa ne ndox mu ñëw daan ma kat appliqué yooyu dami ma bi ñëpp mere ma comme nag dañoo am ko kii damaa bëgg bi yàlla ànd ak man nag parce que nag yàlla nag dinaa wax ak yow damaa bëgg ci combat bu sangoo galaaj xanaa doom dara parce que bee combat daf may wut combat bi une semaine dina mu gaawoon a sonn boo ko dóoree muy kii kii comme di nooy comme Fatou ba sonnoon parce que bu ñu doon wax bu combat di seen doon xaj bu jant bi bu desee quarante heures bi ma ko <laughs> mais wala dëgg la bi ngay ñëw si face à nga jàpp yaa nga woo bi patal pour mu dimbali waaw xam damay sama leen sax bu baax dafa neex tey boo gisee man nangoo accepté waat hmm. ay paravance hmm. def bi ma ko daanee ba léegi otu mu ngi doog a bu bëri waat hmm. amoon na fi combat ak mbay mu avorté man actuellement ni mu wax yow presque maa ngi ci ñeenti avance ñeenti avance bii mooy juróomeel bi cinq <coughs> le vingt cinq juillet bi ak mag Adama Diouf ba le vingt deux août maag ñun jaan Ndiaye production ma aussi ma ma doon doon wax amlise damay kenn aussi ma xaar Ndiaye te yéen ci dara sa yaram liggéey yi liggéey yi commencé ko ñu sa kaw yàlla moo ànd ak man yàlla moo ànd ak man maa sha Allah lépp lii lépp sax yàlla xam am na ñeenti avance mm. benn promoteur moo ko def man ñeenti promoteur ok ba ma dama ci barke. boo gisee lii tey avancé ngeen ñëw retrouver waat seen culture en tant que vous êtes des noirs américains tey ban sentiment la ci am pour découvrir li ngeen nar a am. xëy yow déggoo wolof. boppam parce que ñoo def sànq même boo déggoon sax dañu xam lii mbirum cosaan la parce mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. xam nga cosaan moom da koy sentir xam nga taas ma tax taas sax yow góor lañ ciy sa bopp comme ça ñoom bi gars yi yëngatoo ma bàkku ñu li bàkku ñu génn leen seen bopp loolu la ko wax kon mi door a découvrir I've, I've, I've seen some online and things like that. It's the first time seeing it in person. nekk bu ma dooree kii ba ba mu tëdd lu mu ciy wax. boo ko dooree man baax nee na wulli xamoo sa ci li nga dugg ah, wulli xamoo ci li nga dugg parce que tey pare ngeen tey wulli mu daanee paase bu ko dóoree ba gaañ ko daan ngeen may ko eh? ah, yow yow bëgg nga ci benn américaine bu baax a baax yow bëgg

focused on bringing back the diaspora, bringing back home to Senegal. Senegal specifically as an entry point, um, a, a form for healing and a platform, and okay. a platform for social and economic ties. Mm. donc benn une semaine boo xam ne dañuy dugg fii dem jëm nekk a naa ba xool ndaw lu ne da nga mën na ne njiitu mm. nekk di critiquer rek am na lu leen doy ku nekk la ngay toog di critiquer dama nga créer benn affaire nga jël dix jeunes na cent personnes ku nekk keneen entreprise jël cinquante personnes bi xool moo gën wax ji di gërëm aussi policiers yi di masa masaw coono. parce que benn démb ñaar gis nañ. benn question bi gis ko fii ci tali kenn waxu si. loolu aussi dañ koy ñaawlu bu benn côté parce que gis nañ waa gars yi wax droit de l'homme aussi nañ nañ yemale boo droit de l'homme ñëpp a di gërëm ñëpp daal di sant ñëpp di la jox daje nag ci yeneen face à face yeneen rencontre. une question benn benn benn question benn question pour. looloon def na ko yokk ci wulli mii sonal na ma une question pour, pour la Concrètement, concrètement dans quel, euh, quel secteur vous comptez, vous comptez investir pour aider les jeunes Concrètement. Right. Tabaco Educação. D'accord. D'accord, ça va, merci.